mais Tall euh, waxuma waxu politique mais avocat nga euh, suba nga wara défendre euh, ño xamné dañ leen top ci wal immigration clandestine nga nek également dans une zone comme Mbour nga xamné l'une des zones du Sénégal les plus touchées par l'immigration clandestine ces drames là de l'immigration clandestine famille yi nga xamné mom la tas ñi nga xamné ñom la ci avocat bi nga doon nan la ban sentiment la am ci loolu lépp waaw laaj nga ma loo xam ni lu lu sori la ci man xam nga immigration clandestine Mbour lim ci keneen ñàkk ko ci am na ci ay mbokk yoo xam te ni yàlla jël na si seen i seen i doom ñeneen ñi sax dem nañ ba yegg mais jamono ji ñu ngi dund ay conditions yu metti foofu ba tax ñu ngi wax ni le gouvernement espagnol ñëw nañ ba fii pour négocier un protocole pour faire rapatrier ces ces ces gens là euh, mais lu métti la mais drame bi li ko gën a yéeme mooy li ko gën a doy waaral euh, Moustapha mooy immigration clandestine la nit ñi gis alors que les pêcheurs de façon générale les pêcheurs sénégalais wallahi ñu ngi doon dund pendant cinq jours nous am parce que duñu gis jën jamono ji ñi leen jéem nax nan ay moteur di fibre fibre ah, fibre de verre mm-hmm. même bu waroon millions ñu ko 2 millions dinañ dem pendant un an duñ am liñ doon gagné en terme de revenu annuel duñ duñ mënuñu kaa gagné liñ doon gagné si mois mënuñu kaa gagné si deux cent drame boobu lañ dund tey jii nga baal ma rek xam nga ku xam lébu xam ni benn communauté bu feer nañ xam nga bu ñuy taxaw sax di dëkkante lébu yi fenn ci xam naa fi bëri nay lébu ñuy kontaan nag ci li may wax mais dañoo am ko dañoo nekk benn communauté bu fier maanaam ku xam lébu xam ni liggéey ñàkk rek la xam daan doole rek la xam xamuñu woon ñaan loolu moo tax d'ailleurs fierté excès de fierté xanaa xamoo day tax nit ki sax day bëri histoire loolu moo tax ñu naan yi dañoo bëri histoire dañoo bëri histoire en réalité dañoo am fierté liggéey rek nañ gëm da gis lébu bu dem géej ñëw fekk ñu ne ah tey ji dàll yi bees yi ñoo xew ay ay mocassin ñoo xew mu jënd mocassin tey dem dox si soxla soo bii dem géej da koy yóbbu géej parce que danaan ko géej moo ma ko gis mu dem ba am sët kër baayam parce que dafa doylu ci lépp tey ji bu ñu demee ba lébu élection tax nga mën kaa jox ne am 5000 la nga nii votel mu mën laa votel ñenn si ñoom baa du ñëpp mhm. ñenn si mën laa votel c'est parce que ñoom dem nañ ba xiifal leen si seen i ak si seen i yelleef ñëw taxaw nag def leen di leen li ma jéem wax leen di leen jéem a apprivoiser di leen jéema a domestiquer te loolu su ma koy su ma koy waxtaan su ma koy wax man dama ne mool buy wax laa man parce que man xam naa li si géej dem naa géej jamonoy grande vacances waa Mbour ñu ngi may dégg waa Tefes ñu ngi may dégg euh, Moustapha ma war a la ko mhm. campagne naa campagne naa mool campagne naa Guinée si biir Gambie dem naa Bakaw dem naa Tànja dem naa dem naa dem naa Banjul lépp di fa campagne def ay campagne de pêche samay mbokk samay xarit sama yëpp am na si ñoo xam ne ñu ngi Saint-Louis ñu ngi ñu pour wax leen man xam naa luy géej tey jii mool yi li ñuy dund c'est un désastre c'est un drame bari ñoo xam ne nii sax dañoo tayle seen gaal maanaam amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu ñu jël ci géej gi seen matériel bi ñu yoroon doon ci war d géej moom lañ jël tayle pour am paas pour mën a yéeg si embarcation de fortune pour mën a dem Espagne bañ demee encore fekk fa beneen drame parce que foofu li ñu yaakaaroon ne loolu la nekkatu ko. l' Espagne n'est plus cette Eldorado là. non fi ñu doon taxaw di kii. même Italie même Europe y a plus rien. et pourtant am nañ ay potentialité fii. Hmm. pétrole feeñ na fi gaz feeñ na fi te et puis day feeñ ci géej. Hmm. jamono ji muy feeñ ci géej ñi nga xam ne ñoo doon jariñu si géej mënuñoo jariñu si géej parce que lan ay l' échange de personnes nañ jël jox ko ay bateaux étrangers ñiy piller nos mers nos ressources halieutiques.

jamono ji nga xam ni de l'autre côté de l'Atlantique dañ doon ñëw taxaw yor seen i embarcation de fortune parce que jamono traite négrière embarcation de fortune seen i bateau nañu daan yor ak seen voilier mhm. ñëw fekk fi suñ une jeunesse disponible fekk fi ay xale yu góor yu rafet ay xale yu góor yu am doole ak ay xale yu jigéen yu rafet ne leen par force di ngeen ñëw ñu yóbbu leen Europe di ñëw ñu yóbbu leen Amérique ngeen béyoon suñuy tool mhm. ko woon mais ñu leen ba pare ne ku bañ dinañ la sànni biir ji nga xam ne na bañ suñuy maam defar nañ seen i dëkk defar seen i tool bañ ñu nekk ay puissance accomplie jamono yu ñu taxaw seen doom ñëw di dem di jëli seen i ndono ñu taxaw ne leen maintenant l'Europe est devenue une forteresse kenn du fi duggati wala boo ci duggati daf may neex c'est là où je dis que l'histoire n'est pas reconnaissante mais mieux encore tey jii ngay gis Afrique bu un petit français wala un petit belge wala petit espagnol bu ko neexee mu ndekkee Paris añee Côte d'Ivoire mm-hmm. reeree Dakar te soxlawul visa mm-hmm. soxlawul visa simple passeport la soxla et voyage avec yow c'est au Moustapha Diop bis bo soxla visa France non seulement sa dignité sax man na ci dess parce que dinañ la rangloo si ambassade yi fay lola ba paré na la rejeter nañ ko après li nga fay dara buñ la ko ci rembourser l'histoire n'est pas reconnaissante sunu mool yi li ñuy dund métti na metti goo xam te man su ma koy wax dañuy foog ni sax li ma dëkk si ñoom moo tax ma koy wax. d'accord du loolu man dama maîtriser sa fléau dama maîtriser sa maîtriser sa drame. bari na mbuur tefes ay kër yoo xamante da ngay dem doo fa fekk di góor góor laax doo ko fa fekk. lu tax parce que ñoom ñoom mbëkki nañ ñenn ñi des nañ si biir géej pas plus tard que il y a un mois. papa ak doom des nañ si géej dañoo demoon di nappi. des si biir géej dee ñoom ñaar lañ jébbalandoo seen borom seeni kër maintenant ay jigéen rek fa nekk ak ay xale yoo xamante ay mumin nañ am na si ñoo xamante ne dañuy jógee mbuur daw ba kafuntin kafuntin en Casamance. bari na si ñoo xam ne sax li olof lu lébuy tuddee de ndi diw dafa lang maanaam da ngay def feneen di campagne fa dem ba ut fa kar lang fa mm-hmm. mm-hmm. boo dellu see nga fekk loo xam ne c'est un désastre kooku dawul uti doole mais peut-être fii la fii la jàmmam nekk fii la terangam nag mënta dëkk fenn fu terangam nekk d'accord loolu moo ne ñu koy dund chaque jour que jëfee ñu ne la bateau chinois dugg fi bateau russe dugg na fi bateau espagnol dugg na fi bateau français dugg na fi bu ba tey jii léegi Macky Sall mm-hmm. demul di signé ak benn dëkk ay accord de pêche mais di signé ak ab union européenne union européenne mooy lan vingt sept états si li leen ñànk nga yem signé ñoom ne état yooyu ku ci bëgg na dem pêche si eaux sénégalaises yi tey jii même dëkk yi nga xam ne amuñu bato bu leen neexee ñu trouver un quai si dëkk bi nga xam ne am na quai bay ut ay batoom ñëw di pêche fii si eaux sénégalaises yi ba pare di ko piller te bu ñu waxee dëgg ku yaakaar ni respecte nañ tonnage yi c'est pas si nga fi corruption bi fi am mm-hmm. tax na bato fi mayoon ne ka sa bu ñëwee dina fa wàcc 8 tonnes. d'accord accord taxawal di passé sous le nez des autorités ñenn ñu corrompre leen ñu bàyyi produit bi génn. d' accord ta beneen bi mooy fu mm-hmm. terminer mooy. Mm-hmm. dañ di jox licence ne leen c'est pour 5 ans wala pour 10 ans depuis 30 ans depuis 50 ans ñu fi di piyee noo meer. d' accord dañuy wax ci loolu te yéen a ko